noonu laa ko mën waxee parce que à chaque fois heure bi bu jotee rek ñëppay taal seen télé jàpp la première chaîne de télé privée du Sénégal fas yéene leen gunge waaye ci waxtaan gu neex ci ay thématiques euh, ndax gis nañ ni wax dëgg yàlla semaine bi moom intense na lool saf na sàpp ci li nga xam ne moom ngeen demandé euh, ci ay questions ñu indil leen ko. fas yéene waxtaan ak yéen ci loolu nga xam ne moom mooy rëkk-rëkk jamono ji waaye dugg ci kër yi rek ba fas yéene dugg ci néeg yi ak ki nga xam ni mooy sama yaay ah, du ma ci wéet benn yoon comme ah, semaine bi moom da ko yëngal ba mu saf saap yëngal na ko ba mu saf saap loolu la yàlla dogal moom moom moom bureau bi moom moom moom kër gi moom moom euh, néeg yi waaye moom moom société bi en général loolu sañ nañ ko wax ndax li muy apporter population dafay am njëriñ bu baax a baax a baax moo tax euh, ñu ngi leen di nuyu encore yaay di la nuyu di la ziar sa bu baax na de mais yaay ah? doo ma jàngal tàggal. yaay sa bula tamit. laal la da bulaw de. <laughs> laal noir dégg la. waaw tey moom danoo couleur moom. tey waaw danoo couleur waaye damaa fàtte fer ba kër ga. <laughs> yàlla baax bàyyi ko nii. <laughs> ci tesi bi la. xam naa tey fa bi dina ma waaw yàlla baax na garaawul. <laughs> c'est que del wéet di taf de def say tagal. ah jéeg da ngay mën tagalu. ah del wéet def say kii di tagal façon bi daf ma neex monument de la renaissance bi. daf ma neex moom la ko am di tuddee de. daal ah? ko jàngal da yomb. Oh, ay da ngay yomb ma daal su ma fi kenn soo kër ga def defal la ko. ah la ko. bu ma la ne su ma ñëwee fi kenn waa ah, fi mu toll nii yaa ma ko digoon nag. ah damay ñëw wari nan wari nan. ñu dem fële. comme waroon na fi mu toll dañuy def. ñu dem <laughs> fële. noonu laal taabal. nu mu tuddati noonu noonu. <laughs> damay bañ def publicité <laughs> xam naa lu neex ngeen nar a gis parce que yéen ñi nga xam ne yéenay samay ami si WhatsApp bi wala hmm. peut-être euh, Instagram whatever euh, dinaa leen euh, jox ay image exclusivité yoo xam ni sama yaay dama ko fas yéene yóbbu restaurant. lu neex a ngi noonu foofu la mën a yóbbu daal. téye paaka ak fourchette toog. barki yaay na recommandé ñu jox ko mëni loolu ku ko tànn doo <laughs> te mu ne waa ñun géwal lañu waay yow may ma nii. saf lan koy lekk te ma ñu jël loxo. ah lu nar a neex yaay. lii nañ la yaay maa bu baax comme ni nga ko waxee sa euh, émission ci heure bu baax tarkaal fii ci 2STV bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur mm-hmm. waaye ñuy wax nag jëf te Serigne Touba mm-hmm. suñu yaakaari tey ak ëllëg nag ñu leen di ziar bu baax a baax Touba di nuyu nag euh, mboolem kilifa diine mboolem kilifa aada di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér ak mboolem kilifa diine mboolem kilifa aada di ñaanal na Sofia ñu nekk ci hôpital feebar ah nekk ci coono mitit ñu ngi ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ba delloo leen seen sago waaye ñu nekk ci prison yi sama xarit ya tarkal la samay góor samay càmmeñ dañuy faral di topp émission bi maa ngi di ñaanal yàlla liberté ñoom ñu génnaat ba ñu ci bari ay xarit waaw samay xarit lañu waaw ñu génnaat di laay ndeysaan waaw topp 2 baax baax maa ngi di ñaanal yàlla may leen liberté ñi nga xam ne nag saa yu ñu génnee def lu rawax lan defoon mm. yàlla soppee leen fa rek mm. ba buñ génnee changé soppi doxin rek ah kon yàlla yàlla defal ñëpp jàmm taaw bu jigéen dama yàkkamti heure bu baax bi ñëw mënul ñàkk mais tey nag yaay damaa bëgg nuyu tey euh, nuyu waat sax sama papa euh, Baye Ndiène Thiaw laay général maa ngi koy ziar bu mm-hmm. baax sunu sunu papa jooju mm-hmm. nekk sunu sëriñ rek waaye sunu papa la di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm sutura ah bàkki Seydina Mouhamed njaboote na ñëpp mm-hmm. moom euh, lu baax rek la ñu digal waaye lu rafet rek la ñu digal ñu ngi koy ziar bu baax Baye Ndiène Thiaw général ak njabootu euh, imaamul mahdi yëpp yëpp yëpp waa ahlu bayti rasul bi yëpp ñu ngi leen nuyu waaye di beral nuyoo ki nga xam ne mooy sama sang aussi euh, Alassane laay maa ngi lay ziar sang bi bu imam Bachir laay ah, ak ña fa nekk ñëpp ñoom maam Dione njaboot gi yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax moom doomu ndey monsieur le maire de Yoff la. Euh, moom aussi. waaw Issa sa mag bu góor maa ngi koy nuyu. kan Issa ngay nuyu tey. Issa <laughs> Issa Thiaw laay. nijaayu Bamba. maa ngi lay nuyu daal. Ah, baax na waa dëgg la nag sama may bëggee Issa. moom moom da lay bëggee da la bëgg sama xarit la. moom day toog di la seetaan sama xarit la Issa. day toog di la yaay di nuyu aussi mhm. monsieur le maire de Yoff. Mhm. Euh, Seydina euh, ñu ngi koy ziar bu baax. Seydina bu baax la jeune la. mais mhm. mi ngi bay waaram bu baax a baax a baax a baax. te defe naa ñun jox nañ ko bopp ngi ci réalisation yi Laay Maxtaar ñu ngi koy ñaanal yàlla na yéen bi oyof mu nekk ku bëgg liggéey ku gëm liggéey euh, du ñu def lu dul ñun ñaanal ko parce loolu lañ bëgg jeune buy liggéey dafay baax nga di ko sànni ay kàddu mm-hmm. ñaan ko defee yàlla teg ko loxo bu baax mm-hmm. monsieur le maire ñu lay ziar bu baax di la ñaanal bu baax a baax a baax monsieur le maire bu Yoff ñu ngi lay bu baax di la nuyu mm-hmm. comme ni ko sama doom di waxee ñu jàpp rek ndax jeune bu bëgg a jàppale néew gi doole gi ba doon musale maire war a liggéey jàppale askan wi mhm. ñu nga ñaanal yàlla rek mu teg la loxo nekk xale sax nekk xale tamit ñaanal rek xale yor réew nag xale yor surtout moom nañ ko bàyyi xel c'est très important gëm boppam mooy yor réew <laughs> kon doxalal na doxal <laughs> macha allah ay am na solo euh, yaay démb euh, dañ fi euh, soulevé woon benn thème bu am solo ndax gis nañ ni semaine bi da nga dugg carrément ci néegi ndax des fois dafay baax ñu jël semaine lëmm yaay euh, dugg ci li nga xam ne moom mooy néegu sëy yi mm-hmm. euh, te euh, defe naa ñetti fan yi nga xam ne moom lañ fi waxtaanee am na njëriñ ci ñu toog di seetaan te ñu bëri apprécier nañ loolu bu baax a baax nga tax na tey xëy na dañuy def rek laal góor ñi ndax benn jour wala ay heure du jeex ci li nga xam ne moom mooy débaawu sëy rawatina góor gi nga xam ni moom moo yor kër fas yéene li nga xam ni moom lañ fas yéene waxtaanee tey amplement ndax euh, defe naa bu ñu waxtaanee jigéen euh, baax na à chaque fois aussi ñuy jéem a cof ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa kër gi ndax lépp ñoom la te defe naa ni euh, jonge warul des kase ci li nga xam ne moom mooy jigéen ndax góor aussi baaxoon na di def li nga xam ne moom mooy ay effort ba xëy na ki nga xam ni moom la nekkal mu gën a mën di defaraat toogaayam waaye gën a mën a yiir li nga xam ne moom mooy njaboot gi yaay tey nga ñëwal ñu ci li nga xam ne moom mooy jonge góor jonge góor day Sofia laabir moo ci jiitu oyof. Mhm. sa jigéen góor boo boo diisee doo mën a jonge. dëgg la dafa am góor ñoo xam dañoo rëy. dëgg la ba seen rëy dafa mujj dépassé. dëgg la parce que nag Sofia. Mhm. ñun jigéen nag yàllaa dogal rek nag mu jël cër bi lépp jox ko góor. dañ ko ko delloo waaye nag tarkal la nag ko ci xool bu guddee fa ngay toll sa borom kër ci méthode bu ñu gàttal xel tuuti nag respect du femme. yaa ngi wax lu am solo yaay. yaa ngi may dégg. yaay yaa ngi wax lu am solo. <laughs> dama teel a tànk doy waar la yaay wax nii dama teel a tànk nii. yaay ni nga ko ubbee nii. Eh, dama la dëgg la. barke Serigne Touba olof olof dëgg nga wax yaay. barke Serigne Touba. ñun maanaam suñu xel tuuti rek. waaw bu ñu am respect waaw bu ñu amoon bu ñu gàttee xel tuuti rek du ñu jox cër suñuy borom kër. te boo heure boo xëyee boo. kii da nga koy xool du tee yaa ngi koy xool. nekk ci sa bopp mel ne dara musul xew. ak respect jox ko respect bi. Mm-hmm. sutura bi waaw. ak sa tura bi kër gi merci beaucoup. c'est très bien mel ni dara musul xew yaa ngi dundaat ak moom comme dab. Mm-hmm. dafa am cër boo xamante ni góor dafa am ci ñun mais ñun dafa am boo xam dañ koo am ci ñoom ku ci nekk dafa am fooy mottali sa morom ci biir néeg mais góor ñi tamit dafa am ñoo xamante ni pour ñoom lépp lu la def rek yàpp nga leen daal. waaw dafa am yàpp nga daal yow. loolu est-ce que du rëy. pour rëy la. rëy la ba pare na jël seen yaram yëpp def ci ay code. ay code lañ ci def. social maa sori tey des fois yooyu ma doon namm ay. tàpp loxo yooyu doo ko man damay sànni bi téeli rek <laughs> am na góor ñoo xam ni seen yaram yëpp dañ cee def ko kooku gënoon a xale sëyër Sophia. yaay mooy maanaam ñi nga xam ne peut-être mën naa ko tuddee genre pas allemand yi ñuy wax. Ah. dañu nekk seen kër fu ñaaral soof. xamuñu foow ak seen jabar xamuñu foow ak seen njaboot amuñu benn euh, complicité entre ñoom ak seen njaboot. te loolu baaxul léegi kooku bu bindoo noonu bu duggee ci biir néeg bu nan la war a defee. kooku ndax dina fa def dara yaay. ah di nga continuer di aju rek. damay ragal mu jël muuru dinaa fi la rek. Ah, bu bon léegi dagg ko xam nga dafa am loo xamante ni cër la bu nu moom. ndax nu koy jox gis nga xol xol la rek xolu góor xolu jigéen ñoo bokk li ñuy yëg. Mhm. comprendre nga ñoom li ñuy soxlaa neex neex. ak jigéen ju leen di tarbiyu di dox ci seen waaw di leen satisfaire ci biir néeg bi ñu nit loolu la ñu soxla ci ñoom. Hmm. danoo soxla jàmm. maanaam ñu ubbi bunt waaw ubbi bunt bi. dëgg la amul yabeel. am na ñoo xam bu ñu ko fekk seen soxna ba ree tax pour ñoom dépassé na leen waroo ree yow ko jigéen ko waroo béggee. te yaay li li ma jaaxal mooy ñu ci bëri des fois ci ndoxaan gi dañuy sax dañuy sax ñu baal ma ci kàddu xaw a ñàkk fayda mais buñ la takkee beneen kanam la ñu indi. Sofia am na olof am na olof yoo xam am na loo xam olof nga koy dama ko dàq de lu nuyoo ci sëy feeñ na ci ngoro dañ koo fayu. Mm-hmm. am na luy feeñ ci sëy te nuyoowul ci ngoro gi parce que boo ko gisoon ci ngoro gi doo ci dugg. la dëgg la boo ko gisoon ci ngoro gi doo ci dugg dafa dëgg nga mais am na nag détails yoo xam yaa ngi koy yar ci ngoro oh. mhm. boo duggee ci sëy ba day gën a piir boobu moom xamal ko ci ngoro gi mais du jàngoro yëpp ay feeñ ci ngoro am na ñoo xam ne bu lay ngoro mhm. seen lépp la ñuy nëbb mhm. mais bu ñu xasee bu dugg ci lan lay woon ñoom la kan ndax lii sëy du ngoro la sëy yi bari nag looloo koy tas parce que da ngay ñëw ma lewet ni papaaya ma ne ci yow bu ma nee waaw nga ni waaw su ma nee déet nga ni déet sama téléphone bu yàqoo léegi nga jënd ko léegi andil ma lu ma soxla léegi nga andi ko nga andil ma ko ma dem nag ba dugg ci yow maa am ci yow ñaar dërëm su ma xëyee 500 francs boo may sànni sax pour ma ndëkkee ko samay da nga koy régler loolu mi ngi fi. Mhm. mais tey ma ñëw foofu. dëgg la damay dugg ci góor ñi côté seen yaram yi côté. def ko ay côté munoo leen a raay ba ñu vivre. kafuñu réewuñu. non non. ba pare yëg-yëg bi lan lay soxore anam yëg-yëg bi ba mu ko bàyyi ak yow mooy yu daw sama YouTube instant bi vidéo boobu. est-ce que du loolu yaay des fois mooy indi ñàkk complicité ci peut-être ci néegu sëy yi. waaw parce que góor bu firiwul. kanamam mayu la kanamam. doo mën a def non non am na ñoo xam sax dinañ bëggee dinañ kaf dinañ ree mais lal bi la bëgg à chaque fois ñu ciy dominer. yaa est-ce que du ragal. non dañuy bëgg chaque jour ñuy dominer. loo leen def ñu ne leen ñun xamoon nañ ko daal. Ah. maanaam góor gu lekk doma daa maafe su la ko mbalax dëxin waaw. am na jeeg yoo xam dañuy nekk seen kaw jëkkër yi 24 heures si 24 fu loxo laaj dinañ fa dem fu nopp laaj dinañ fa dem fu bët laaj dinañ fa dem mais duñu mën yëngal waa ji ci lenn lii ay jeeg ñoo ma ko jooy parce que dañuy rëy kan yow tee nga ma ci point ba pare tee seen point faible def ci cote ñoo leen di trouver sa téléphone boo ko tegee 24 heures sur 24 mënu ma ko tijji parce que dañ cee def code. code la dëgg la il faut nga décoder ko pour nga am accès. code code ci góor. c'est vrai maîtrise dafa baax ci boo génnee ci biti. mbedd bu la jigéen naree jombat mën ngaa maîtriser sa bopp. foofu merci beaucoup. mais sa biir néeg ci sa kaw lal dindil code ya teg ko fële ba pare côté waat ko. mais bàyyi sa jabar ak yaram bi mu la daan sax yow mi di góor sa jabar di la dominer. waaw ah bëggu ko bëggu ko. maanaam neex neex bi ci boppam ñoom bëgg di am victoire dañuy bëgg di la dominer en même temps ñoom li nga leen di def duñu la yëgal nii mi ngi neex ñu ngi koy bëgg fa nga xam ne fa nga leen war a laal foofu lañ dem kot daf doo doo fa yegg doo fa laal gis nga lii ma lay wax waxin la déggin la laaj il faut ñu jox ma nopp tuuti concentré wu ci émission bi ma toj ko ba mi tasar barke àllaa ji fàllu dama koy dëbb ma jox leen dafa am loo xamante nii jigéen daf ko moom ci biir néeg neewoon naa la vidéo boo xam ne jigéen ak borom këram bu nekkee borom këram ba war a yëg boppam am na yoo xam ne dañuy conseillé mel ni euh, climatiseur bi ni jëddi jëddeer comprendre nga mhm. doo xam ndax ñu yëg nañ seen bopp parce que ñaane def benn geste nga xam ne kii jàpp da neex neex ah maanaam yaay bu ma déggee ci wax ji mooy booy sëkk ak sa partenaire. bu la amee foo xam ne yow egg na faak ya da ko war a wan ni yow mi li ngay def kat baax na. yëg ah Sofia. léegi boo ko waxu rek mooy maanaam yow soxor. loolu day encouragé jigéen tax mu xam ne am na ndam neex na. kontaan na mais am na ñoo xam que du peut na sentiment yoo xam ne boo ko amee. noonu nga ko a manifester woo doo ko mën a wax. loolu day kay léegi xam nga dama cee defoon vidéo boo yëg sa bopp nga def noonu. léegi tey dugguma foofu tey damaa dugg ci yéen seen yaram yi ci boppam nañ ko liberté may liberté seen jabar yi di leen bàyyi ak ñoom te liñ leen di def Sofia xoolal ñu ci def bravo nag Sofia jéeg gi dee nañ ci ñàkk apprécier ci biir léegi Sofia dañuy takk sax dañuy def ba sonn ndeysaan matériel yi ñu jënd sax dafa seer def ba sonn man mii boutique laa yor di jaay yëfadu jigéen kese kese kese des fois jigéen dugg sama biir boutique jaay fa lu mat fukki junneeg juróom wala fukki junneeg juróom benn yoo xamante ni góor dong nga ko war a bégale ci góor gu di sax mu mel alkaati mu yëngatu. te des fois day baax sax yooyu boo kontaanee. xëy ah! suba mi ngi noonu dara ci xaalis bi noonu. nañuy yëngatu maanaam di bàyyi seen yaram yi. fii rëy rëy lu amu fii. Mhm. Sofia ñaar bu ñu nekkee ci biir néeg ku ne li gën a seer sa morom nga gis amu rëy rëy lu sëy yàlla moo xam lu mu ci def. Mhm. loolu tax góor ak jigéen ñi nekk ci nekk def lu leen neex xëy ko génn ku nekk dem na ci leneen. Mhm. fàtte la nga nekkoon. comprendre nga parce que dafa am lu ci yàlla suñu borom def. kon góor ñi tamit danoo war a laabire jigéen ñi ci biir néeg yi. mais yaay est-ce que du des fois tamit jéeg ji dañu xaw a ëppalaale. ëppal tey def na. ay ah, ay waaw ëppaluñu. Ah, faral jéeg ji des fois tey moom. ci góor ñi laay ñëw uniquement jéeg ji dama leen di bastaani. sonal seen jëkkër yu non non non non mais dañoo am na ñoo xam ne dañoo jonge Sofia te bëgg lu neex seen jëkkër. li may waxtaane góor noonu lay waxtaane ak jigéen. mais est du ci yooyu noonu des fois du am excès maanaam du am luy ëpp. ëppul. mais foo xamul ko kotam code boo xamul fu mu nekk ma nga mën a yëngal borom foo fu muy ëppe code bu réer ma ne noo noo naan daa xamul fi may laala fi may jàpp laal nañ fu ne dara mënul yëngu ay mba waay dama. Eh, Sofia ñoom ni ñu bu xajam bu saf sàpp ak yaay. xam nañ ba bëgg a dee dara dara loo leen waxul xamuñu ko. eh Sophie am na ci jéeg yoo xam ne aussi mais yaay loolu loolu attends loolu point fort u jéeg bi la. imaginez tey yàlla tasante la ak jëkkër joo xam ne xamul dara yow jeg bi yow nga am sa ay yëf yoo xam ni xëy na jombal nga ko. ba xëy na moom dootul gisati kenn mais loolu sa point fort la. Sophia xanaa amoon ma nga may ma góor gu xamul dara ma sëyal ko ma ma gën a góor gu xam. moom laa lay wax nag. góor gu xamul dara moo gën a néex a sëyal ndax loo ko defal da koy naw dara di. ku xamul dara da nga koy gide di boobu sëy gën a neex di góor googu gën neex a jàpp loo ko def da koy marqué foo ko raay tey bu suba bëgg nga raayaat ko yaay tegal foofu sa baaraam bëgguma nga eggali foofu ndax dama ah. bëgg ñu dem publicité ñëwaat nga eggali ci góor ñu ñëw ci góor gu xam dara débat waaw débat lu neex a ngi noonu nañ dem ensemble xool euh, une page de pub ñëwaat ci mbégte ak teranga c'est parti à tout de suite du ministère de l'élevage et des productions animales, le cercle des éleveurs de la banlieue, CEPL, à sa tête le docteur Ibrahim Agnan, lance la sixième édition du salon, le salon international de l'élevage, Kisplanade, Western Amadou Barry Guédiawaye mbokki Sénégal kon nag jox leen ma nopp bu baax bi rek ma xibaar leen du 4 au mai 2023 ñu ngi ko darajaale deux grands monsieur de l'élevage du Sénégal monsieur Siri Ndaw borom bergerie Ndaw et frère kooku mooy borom càppaacoli monsieur Lamine Diop borom ferme Maxtum le médiateur de l'élevage du Sénégal invité d'honneur le tapis rouge est déroulé à monsieur Ahmed Aïdara député maire de la ville de Guédiawaye kon nag gars yi un salon multidimensionnel ñu exposé ci les plus beaux sujets de l'élevage du Sénégal bu ko dalee xar nag béy ginaar ba ci gileem mbokki Sénégal tout sera au rendez-vous de cet événement multidimensionnel cet événement de l'année le cercle des éleveurs de la banlieue la dimension la plus élevée de l'élevage du Sénégal kontaan nañ merci beaucoup euh, yaay ñëwaatal euh, fi nga nekkoon euh, maam Jaara depuis Malibu ma chérie maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la fóon ah yow mën naa la lool namu naa lool sama nit bi ah xawoon jàpp rek moo tax mais maa ngi tub di jégalu nuyu ma waa waa waa waa géejawaay bu baax a baax kontaan naa ci yow yaay ñëwal ci góor gi nga xam ni bu jeeg tasanteek moom yàlla def xamul dara ci àddina maanaam xamul dara ci mbiru jigéen xamul dara ci jonge xamul dara ci àddina ñëwal ñëwal ma ci kooku balaa nga ñëw ci ku xam ki xamul dara moo gën a neex a seyal gi ñëw rek doon ñoo sax xamul dara dara kooko topp jigéen ba nga defeen dafa hmm. yàlla nag boo ñàkk xam dara na ñoo ci jigéen ju xajam takk ripp ak suuf ko da toog ko defati ñooñu nag ñooy ànd ak seeni jabar dem ak ñoom kenn du leen énervé góor bu xamul dara moo gën a neex a téye ci sëy loo def ci moom day bees ci moom mm-hmm. surprise lay doon mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag boo fekkantee da ngaa doon di góor gu xamul dara par exemple dajeeg nag jigéen ju xam moo lay giddee jàngal la caay-caay jàngal la ay ruq tàmmal la neex-neex boo xam ne yow fi mu toll nii mënatoo dund saa moom kon kooku lu mu def rek moom kooku moom moo gën a neex kooku ku ci dal moom sa bàmba naat na ku ci dal waaw boo la jongee ba takk suuf. <laughs> fa bamba naat na moom da ngay daal di gundaan daat nu mu la neexee. ah yaa matul ma bu ñu miinee de. non non bu ñu miinee duñ ma sa dem. Sofia góor gu xamul dara njëkk njëkk nga njëkk koo am ni yow. waaw nga daj paquetam nii dunduloo ko lu ne. kooku mënul dem feneen ba dara jaaxal. ndey mel ni jigéen bu xamul dara rek daal ci ko xam ne si. yow rek xam. dëgg la parce que à chaque fois que li nga koy tàmmal day bees si moom da koy guidé. mu tax jigéen man pour man moo ko pooj jonge ci jigéen la war a ëpp parce que xamoo ban góor ngay dajeel boo xamante dina am nu mu ñëwee ndax ku nekk am na ñoo xam ne dañuy xam ba pare ñëw seen xamit ñëw toog soo leen bëggee jommal da ngay daanu say ay jeex nga toog parce que yow wari nañ ba ñëw moo tax code boo gis jéem koo daj buntu néegu sëy du du jeex amul limite en fait amul limite buntu boo gis jéem koo gëstu daj ko ki la xam la fa nekk hmm. boo trouvé buntu boobu jàllatal ba ca des hmm. te yaay yooyu yëpp boo ko boo ko dajalee moom moo lay téye ci sa néegu sa waaw yooyu yëpp nga dajale ko xam ko Sofia ñii di fay seen xaalis ñu leen di cotiser du ñu ay dof bu ñu xamoon du ñëw ci ñun dëgg la te te yéen ñi nga xam ne yéen a leen di cotiser bu ñu demee ba appliqué jaar ci li nga xam ne moom ngeen leen digal dañu gis résultat léegi nii bi may ñëw yàlla xam na ni bi may ñëw nii jigéen woona ma ci yoon mi ni ma sama jëkkër dafa ñibbisi te Mbodia Mbaye wow na koŋ wow koŋ boo xamante ni jaaxal na ma ma bëgg loo ma mën a dérégler situation bi léegi léegi nii damaa ma sax di ko ree mhm. te pourtant maguma ko moo mag fuuf ci ay at mhm. te jëkkëram du fi yàgg te leen ko day dellu mi ngi noonu te pourtant samay wax ci la jànge loolu moom ba xam ne jigéen nii la war a mel kon am na ñoo xamante ni tey yegg nañ ci benn âge bi te xamuñu dara ci sëy dara dara tus lañ ci xamul am ñoo xam ne ay xale ndaw lañ parce que ñu ngi topp ay ñu naan ñu amul jëkkër sa ñu déglu dañ koo war a déglu. dañuy jàng pour dañuy jàng éducation la parce que man lii may waxtaane xaaruma ba am jëkkër soog koo waxtaane bi ma koy waxtaane dix ans la fekk maa ngi détaillé yi musuma jënd ay problème bu jàmbur ah man ay mag daan maa nga fa toog ni jël samay xeet toog di wuree ñuy wax may dugal si sama nopp boolee sama xam-xam bopp ko taal ko Sénégal moo war a ñu xam ma dëgg la et pourtant ba sëy jotee damaa sëy yàquma de. yaa da ngaa a sëy. merci beaucoup da yee. waaw da nga a sëy à l'âge de 16 ans 20 ans yaa ngi ci sëy. macha allah mi ngi noonu da lay yee tëjji sam xel nga xam fi ngay taxaw. moo tax jigéen di la gën a bàyyi loolu xel nga sëy ak nga ñàkk sëy yëpp doo gis nga eh Sofia nit doo xaar ba dugg ba war a jàng école. pour jàng lettres yeeg dëgg la chiffres dëgg la. xale boo tollee ci xale di nga war a duggee école di jàng di xam noonu nga war a mën a jàng mbirum góor ak fii ku yàqu dalaa neex. Sénégal nag moom amuñu culture boobu. boo waxee dañ naan dañ naan dañ am xale da koy dégg xale di yàq xale yi lu mu bëggee yàqu yàqu gis nga boo demee. ñu bëgg yàqu da dëgg la yàqu ma benn xale internet baa ngi fi ña ngay tàppe concours nu mu leen neexee ba ma ba film yi tamit tasaaroo ci dëkk bi ñu koy seetaan eh, eh, wax nga dëgg parce que xale yi dañuy yor téléphone te buñ dee buñ defee w point eh. fo ñuy jëm sa yaay du ko fekke sa papa du ko fekke mais Mbodia mii di la wax ni la da ngay téye sa bopp ba nangami nangami nangami nangami at ba jëkkër ñëw lii ak li kooku mi ngi lay jàngal waaw yow ñu naan la da nga yàq xale suñu gëmuñu li ñuy wax déedéet man waxuma pour lu ma yàqee xale xale google yaa ngi seen téléphone yi dëgg la film yaa ngi daw ñu koy télécharger seen téléphone yi di ko jege na la léegi di ko seetaan loo da nga ko comprendre nga kon Mbodia buy wax jéggi ndaw ji ci biir léegi kersa di leen bëgg a rey ak góor ñi nga xamante am na góor ñoo xamante ne xamuñu tus xamuñu dara ñaar dërëm xamuñu ko seen jabar yaa ngi souffrir na te góor ñu dañoo boole ñàkk xam ak dof mais yaay loolu est-ce que du la découragé loolu non dëgër bopp nag boole ne dëgër bopp wala wala peut-être kersa loolu mën naa dal góor yaay Sofia li ma la wax léegi gis nga góor bu xamul dajeeg jigéen bu xam mën na koo gide ba mu xam ah, mais ci kaw mu bàyyi ko boppam mu gide ko am na góor ñoo xam ne xamuñu mais dañoo dëgër bopp góor du nangu lool de an kay góor buy nangu ah Sofia ki nga waroon nekk eh, ñu si géwal gi la Sofia ñu suñu loolu ah yaay <laughs> moo tax nag tarkal am na góor géer yu dafa neex Sëriñ Bamba am na góor géer yu xajam nag non stress li parce que lu tax xam nga lu tax góoru géer yi suñu différence bi ñu am benn xool góoru géwal buy fréquenté këru géwal wa xool bu fréquenté këru géwal bu génnee beneen tund la yor da ngay xam ni kii am na xaritu géwal wala yàgg naa géwal yi parce que ñun yi ñuy garaawal moo ñu fere ñeente wut ñun dañ ciy waxtaan. ba pare man li ma jaaxal mooy peut-être ëttu ëttu géwal wala beneen ëttu sax every euh, euh, feneen fu mu mënti nekk euh, tey bu fekkee këru géwal la yéen a ngi toogandoog xale yi nga xam ni ñi ngi màgg waaye ñi ngi waaj a dugg ci li nga xam ne moom mooy néegu sëy peut-être li nga xam ne moom ngeen di waxtaanee ci ëtt bi moom lay for def ko arme ba xëy na bu duggee ci sëyam da ciy toog wala dafay am lu ko ci gunge. ci ndaje googu noonu ndaje boobu ñuy wax ak yow ci leen ngay dugal sa bopp bi lu bari. lu baax. ñun suñu mag yi góor sax dañ daan waxtaanu ñun mag yi góor sax yoo xamante yéen ay bokk ndey ak baay dañ la daan gidee teg la ci yoon ba nga xam fi nga jëm mais sa yaay dala daan bàyyi ak say mag. Mm-hmm. ngay doxal ak ñoom ñu bu boo jàddee yoon ni jubbanti la fekk ñu ngi lay defaral sa sa yoon. mais tey ban maga fi ñemee tudd rakk ah mag yi de dañuy gis nga taxaw ak kenn ci mbedd bi dañ lay ngàdd moom kenn du wax ak yow ñoom duñu wax ak yow ci dara mi ngi noonu la fiiraange lañ lay indil dóor la gaañ la après basta ta du faj dara nekkoon nit fi nekkoon ñoo fi nekk ñi nekkoon ci àdduna ba tey ñoo fi nekk jikko yi ñoo changé dëgg la waaye Sénégal gii fi nekkoon ba tey moo fi nekk dëgg la xale yi njëkk yaa xale yi tey yëpp benn lañ dañoo am différence mhm. parce que léegi li xew xewut woon ñu gën ñoo yeewu ci ay téléphone yëpp waaye ñu ëppoon leen sens nag ci yu bari mais góor ñi Sophia loolu beneen thème bu may tëj la mais damaa bëgg a ñëw ci góor ñi tuuti ñuy gën a bravo seen jabar yi di leen apprécier di leen bàyyee seen yaram ñu ci def la leen saf mais jigéen doo ko yamale rëy bi nekk ci jigéen ñi mu ngi ci góor ñi mhm. góor ñu diis gan gan gan gan rëy rëy rëy ba seen bakkari diis la lu ko raw pour nga foog leen boo jàpp seen sikkim bi doo mën a téye seen bakkan bi ndax diis ndax <laughs> yooyu kat doo toog bu ñuy ree koy forcer. te eh, yaay loolu la waaye. barke sëñ Tuubaa loolu bon xol bu dañ koy forcer bu guddee foo teg loxo ñu naan teggil. Ah? gis nga fi doon foo mi ñu naan góor dafa war a nekk ak jigéen ba mu yëg bopp am na góor ñoo xam ne foo lott foo teg sa loxo ñu naan dindi ah. la dindi ah. raqari buusi naa lan lay wax lu <laughs> buusi lan yow <laughs> parce que Serigne Touba fi ñu toll nii góor ñoo xam boo nekk ci biir néeg ñoom doo gis seen cër dañ koy fay lampe bi tëdd bëgg a rek yooral la day métti de mais ni koy rox <laughs> c'est pas normal c'est pas léegi nag seen cër yooyu la ñuy bàyyi ak jigéen ji moom mu def ca la ko war yéeg yéeg yéeg rek kese la. la kii di yëg rek la kii di yëg. mais yaay kersa nag des fois xam ne day. mais ana góor ak rus nag tamit. ah góor doy rus. non góor bu fekkee am na kersa kon jigéen fan que kooku xamul dara. moo tax nga war koo bàyyi ki ko xam mu lijjanti ko. waaw bu ko xamee tamit te du am li bëgg. tamit nag loolu tijji ko te bàyyi ko buntu bi mu daaj ko def ca kon li li <laughs> waaye rëy rëy ba néeg a wax sa jabar carrément fi ma tee baax na. wala nga meññeeru nii sax xam ne baax am na yoo xam day découragé loo jigéen ci biir néeg gis nga yenn côté yi mhm. ak fi nga yemale sa jabar ci biir néeg am na ñoo xam daf leen di découragé loo parce que am na foo xam boo fa yemale sa jabar day def kersa ci moom am na jigéen ñoo xam ne xam amati effet sax di am na jigéen ñoo xam ne xam nañ de mais la ci seen jëkkër parce que fépp lañ baare fépp lañ baare foo teg ñu la naqari buusu naa foofu daganut yàlla lépp la daganal dara araamu fi Sofia ca ci biir néeg ak sa jëkkër ji la lew ak sa soxna dara araamu fa lépp ko dagan dara araamu fa dëgg la de moo tax moo bëggee dund neex neex ci biir néeg yoro sama sariya man waaw sa sariya bopp nga yor sama sariya bopp laa ci yor man mhm. parce que xam naa la diine bañ daal ba ñu xam ne lii lañ la tere nga xam loolu bañ xam nañ ko te foofu la ñu diine tënk te ñëpp xam nañ ko fa ca des naa yëfi bopp nit ki la sentiru ko bëgg la faa baare côté la yaramam yëpp foo laa mënal du fii jigéen ñu ci baree bare dañoo dem ba découragé seen diine parce que dama waxtaan peut-être boo ñëwee di indi say astuce sa jëkkër bañ côté yaramam bi yëpp nga xam ne kii nii la mel pourquoi pas toog waxtaan ak moom ci loolu wala am na ñoo xam ne peut-être aussi du ñu dégg waxtaani lan yow waxtaan Sophie am na couple yoo xam ne ñu dund barke Serigne Bamba bu ñu waxee yow da nga naan lii est-ce que am na ci àdduna ci ay jigéen dañoo dem ba bu ñuy waxee yow seen voix sax du jóg dañuy yoot te li ci gën a garaaw nag mooy genre yooyu duñ lay bàyyi tàmmal la loolu ba nga dem ba rayee sa cër yëpp ba toog ñuy wëri xale tàmm ak ñoom ropp jam rocci jam ñu dem dajeeg jéeg bu toll ni boo jambaay ñu for ko mu yóbbu leen yombal xiyaam ñu topp ca wala ci kër gu mag gi na nga toog di mu ñëw di sàmmi xale di sàmmi dëgg la xale ya ngay sàmm yow di réglé ka joxe koppa ki kaas ñoom ñu ànd ak boo jambaay ñu tëndu ñu ajana <laughs> te fekk yow ñoo la rey ba nga dee di joxe lan ay koppa ki kaas këwsu wala këwsu kay këwsu yi deux cent yi yokku na couleur yi <laughs> des fois dañ koy otes ko nga naan jottalil kii barke Serigne Touba c'est vrai jigéen jonge na nekk ak borom këram mu tàmmal ko rakkari buusi naa tee léppam fo mu teg ko du fii fo mu dawale nga ko du fii yamloo ko fi nga ko yamloo li nga bëgg a dund ak moom fay lampe bi rocc ca mm-hmm. mu di ko dund yow di ko dund ak yow nag léegi ba nga xëy nag ba jaboot ak moom xamul bànneex ku jigéen ki xamul bànneex xamul fu neex neex ne léegi nag mu jur ci ay doomam toog nga gis ne moo tax ñu baree ngi jur ay doom nga defee ne ñu ngi bee bànneexu mu sunoo bànneexu neexut mm-hmm. ña ngay seen di am doom lu xew xamuñu lu xew léegi nag nga am say doom toog ñu tàmm loola loola ba rey say cër ba nga découragé ah, ñu koy dajeeg jeeg bu foro liñ lay doyee ngay ñëw di di teg waaw léegi nañu dajeeg nag koo xam daa saf sap tée leen ci kot

di leen yóbbu àjjana te kooku la gën a fonk pourtant li nga def yëpp yow na boo am na lu doon dund ak yow boo souffrir noonu waaw jigéen ñaa ngi dee nag waaw seen xol yaa ngi dagg parce que dañuy bëgg dund ak seen jëkkër yi seen ci li gën a bon nag mooy yor jigéen jurloo ko ba deretam jeex nga ne ko fa tëgg mhm. dem xool koo xamante ni tarkal la fokk benn ak ñaar la nga ne fa dund ak moom àjjana te pourtant ki jëkkër gi soo ko toppatoo woon doyewul kee mboor séminage dëgg la dégg naa dëgg ndax ba nga koy takk la nga gis ci moom ba takk ko yaa ko xam waaw mu nekkoon jeeg ju jonga mi ngi noonu dëgg la jigéen am na foo xam ne te jur ku defar sa yaram baax xanaa xamul Sofia gis nga jigéen ni muy tare boppam jëkkëram noonu la góor ñi xañal seen jigéen seen jabari seen digg yi koo ci waxal ñaari kàddu mu jël seen tirkay yee ko ba jumbax ba ni pëll ci biti <laughs> baraaya da koy baraaya fii <laughs> ci faari la koy takk <laughs> dana damm de baax ma ba ca baraaye ko ba ca kaw da koy baraaye pare dëpp yee eh, yaay boobu tëdd dana méttee baraaye ba pare tëdd ndax bañ ko joxe rek naan la bu ma laal sa loxo boobu bu ma am na jigéen ñoo xam ne ni fanaanee saraxu nga génn néeg bu ñu topp la ci saal bi di saraxu <laughs> foo dugg nu dugg fa pour bëgg laa kuy ree ci baraaye gi ci baraaye gi <laughs> xanaa abel la takk bu mu dëgër pour xañ la seen bopp ñoom kon xañ bopp ni ko jigéen di defee góor noonu la ko góor di defee jigéen te pourtant l'islam na dagale loo ko fenn nag kon sëy bi ku ci nekk la nga ca sentir rek la la arrangé ngay dund dëgg la mais bu ñu ko jaaralee ci yoon problème du am déedéet kon nag jigéen bu dee daw sa bànneex guddi jot mu préparé pour soxla la yoo borom kër yoo yaa ko war a ñoom ñun daal ñu soxlaa rek ñun ñoo war a ñëw yow ñun waruñu laa soxla ñun ñu doit être moom compatible rek da nga koy yëg rek yow Sophie yaa Thiam semaine bi dinaa la wax beru li muy def ci digg dëkk bi jigéen ñu baree ngi wow kow seen bul yi di lang beru waaw dinaa ci ñëw maanaam tëdd ci néeg bi maanaam dag ñu ci may ci néeg sa jëkkër tëdd sa jëkkër berub néegam bala fa yor ñeenti jeeg kum neex way dikk kum neeku toog ah damal toog yaay loolu jeeg jeeg ku ko nangu moom est-ce que du yaa fa bàyyi sa bopp da laaj da ngaa defe ni yow fi mu toll ni ñun ñu fit yu ñu am nii boo gisee lu neex toog boo gisul lu neex mu meer say bagage dem am na ñoo xam ne xalaat suñu génn ndax la fu jaar ndax la dañoo jël góor ko ni ko yàlla ak yow bàyyi ma ma torox oh. xamuñu dara xamuñu dara ñu ngi ci kër gi di sëy mais xamulu dara mais yaay loolu dafa metti de moo yow am na ñuy souffrir. mais am na aussi des fois da ngay gis ay ay ay ay genre euh, exception yoo xam ne divorce day am. waaw mais ku jigéen ko wala ku góor ko du am fu mu jëm moo tax xëy na ñuy am. séparation waaw mun naa mun naa fa jënd rek toog noonu. waaye loolu tam dafa métti yaay. mais Sophia jigéen dafa toll jamono joo xam ne day soxla boppam. Mm-hmm. ceeb bu ndaw dafay soxla boppam loo xamul du la sonal. la wax tàmmul lekk dama daa doo dama daa boo ko lekkul du la saf. dëgg la waaye boo tàmmee la lekk dama daa pàccal li moom dëgg def kaa ne kimmasi roof sa kuddu gi mu niin xonk nga seex a ah di nga tàqamti ko dama daa de <laughs> ñu waxante dëgg eh, <laughs> ah waay rése nga ta tuure yéen waaw nag tàggala yow yow ngay nga gis nit ñi nekk sa borom kër soxla ko lool mu yow la <laughs> doom waaja lank ni katiw ni la du fi amee ba pare ñu ne l'islam yow boo ko soxlaa da caa war a dem ba waaye ku jigéen ki amul droit tere la boppam ko sa bopp te l'islam tere ku góor rek la ku jigéen ñoo yam képp kon seen yaram yi dañ koy bàyyi jigéen ñu ciy béggee suñuy jëkkër lañ dañ ñoo boole góor ak jigéen mu leew lool ñu lew leen domm mhm. kon nañuy bàyyi ñu leen di béggal ñoom ci kaw lal yi mais jël seen yaram yi def ci kot lu leen seen jabar def neexu leen fu ngeen jël feneen lu mu leen def mu neex leen pour lan loolu dëgg la pour lan xeeb ki nga nekkal rek xeeb ko laa bëgg xeeb la kii ne xolal kenn ñaawu fi déedéet kenn waaye diw fi kenn doofu fi liggéey bu ko téye dalal xelam mu nekk nit ah yaay gis koo xam ne xale yi li ñu faral di titre ci statu yi lan la defaa nga bàyyi sa jabar wala nga bàyyi ki ngay àndal une semaine nga koy may mu ñëw gën a belli jonga mu rafet ba nga naan ndax kii laa xamoon kon mu ngi noonu ah bu ko fi téye mu rafet geex na kon nag déedéet bind nañu suturaalante rek tey bàyyi yéen it naaju bi mhm. da ngeen di toog soxla seen bopp jigéen day toog soxla boppam day tollu état boo xam day soxla jëkkëram mhm, mhm. nga xamee ko noonu nag boo meree takk si ndigg tëdd mais ni jigéen baraaya baraaye la koy def yow faara mi ba faara mi ne palaj day pare de osam yi waaw léegi ponkal mu ponkalum góor jigéen sax bu bañee bépp boo ko bëggee tipparñe sax waxutuma la loo lay góor foo eh? dëgg la fenn des fois ñu mee bu dem tëdd ci saal am na góor ñoo xam mën nañ laa gedd quinze jours wala weerum yàlla ci saal bi la ñuy tëdd yaa loolu dafa metti loolu moom xam naa nga dëkkee jooy rek nag fu dugg fa la indi dañ ciy gën a yaatal nañ arrêté tey bàyyi jigéen ñi di leen bégal kenn ñaawul kenn daful kenn way duwul góor du bëri keesa ci biir néegam ba leen yi ngeen di fay regarde-moi nii jëndal meen <laughs> Bamba ma lay xool nii waaw ah, kay <laughs> <laughs> baax na dinaa la namm nag fii ba leen def sori naa ñii dañ lay namm maire bi moo bëri arme. waa ci Seydina Mohamed. ah ko wër gis daal. Ah, doo kër géwal ma ñëw une semaine rek kër géwal rek. waaw kër géwal dafa neex. waaw waaw kër géwal dafa neex waaw. yéen liberté rek ku ma gaaw leen ñëwal ñu ba ñëw ñu fecc. ñëwal jigéen ma ma jigéen la ñu fecc dog ñu wéy. ah. <laughs> jàppal ndigli te bu ko yërëm bësal <laughs> yooyu yëpp way nañ ko fi ah ñu taal lamp yi tamit nañu taal lamp yi day dindi kersa yàlla baax na Sofia Thiam ñu ngi leen di dégg bu baax a baax xam naa rési moom dee nañ rési dee nañ déggoo seen xàkkataay gàddu Petit Dia yow la yaay ree ak Abel bàjjen maa ne muuru naan ay yow yàlla nee na yonent bi nee na yàlla baax na yaay tàggatool jaajëfal na la bu jigéen di kontaan kontaan nañ yaay lii rek de émission bu jot ni ñu toogee waxtaan li nga xam ne moom moo fi nekk mhm. xale gën a ginneeku gën a teewaat seen sëy gën a góorgóorlu mi ngoog il faut ñuy wax ku woddoo la ne boo noppee raf la ba leen ma may tàlli tàlli lii moo ma jëkk ndax su ma nuppee du ma dund ba ma may wax te ngeen ñaanal ma jàmm ma gudd fan mi ngi jiyaar naa ñëpp di nuyu waa Kër Massar yëpp Sofia tey nag sa xarit bi laay nuyu kee borom Amérique borom Amérique kee Euh, Mati Mati Mati Carter waaw Mati maa ngi koy ziar bu a a a baax bëgg nit ku baax waaw ndeysaan ku am valeur bilaay ndeysaan la daf ñuy bëgg ma la man maa yaay dama la bëgg <laughs> man yow laa bëgg mi ngi noonu moo tax du ma na bëgg ku riis bëgg ku a partager <laughs> bëgg ku mën digal lu baax nit yaay jàmm rek ngay am Mati Carter ñu koy fóon bu baax a baax depuis États-Unis sama mag sama nduroo yàlla na sa jàmm yàgg mm-hmm. yow di am jàmm di nga am xéewal parce que da nga baax incha allah alors maa ngi leen remercier yéen ñi toogoon di teewlu euh, mbégte ak teranga euh, tey mu nekkoon dernier numéro de la semaine incha allah euh, di nga xaarandi peut-être lundi gudd na mais quand même incha allah dinañ waat ci jàmm ak salaam di remercier ki nga xam ne moom mooy bàjjen maane ci réalisation bi ak MP ak Papa Cheikh ci cadrage bi également Abel pour le son Petit Dia merci beaucoup merci beaucoup merci à Fabi pour cette très belle robe très stylée maa ngi lay remercier ma plus d'amour euh, ku ci bëgg da nga def 76 153 98 12 dem leen seeti ko am na ay tenues yu rafet yu tubaab yoo xam ni prêt à la boo ñëwee da ngay def sa choice bu ko defee nga daal di yóbbu incha allah merci beaucoup on se dit à lundi euh, bon week-end et bonne suite de programme allez au revoir merci beaucoup ciao. Le football est chez vous. Grand événement dans le football sénégalais, innovation de taille au niveau de la Ligue professionnelle. Le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio ouvre ses portes